xaw ma bu ndaw bi ah, Bari. fan la dem Kolda parti. bi de foofu rek am ak Tëngéej. RCD RCD wër àdduna. wër àdduna. RCD wër àdduna. de géej laa bokk ëpp doole sax.

doomu Serif Diop doyen ak Codé Diop maa ngi lay nuyu. jaajëf yaa ngi tax ñu naan maam maam Mbaye da ngaa transhumé waa Sen TV l'officiel. dem nga bu yàgg tey damaa bëgg ngeen yóbbu ma ba mille cinq cent. waaw monsieur le maire lii nga lii tey ne man ak yéen ñoo faat. fan ngi ci quatre cent soixante quinze. Ah, de boo amee mille sax buy boo nga daw ba dee. tey. mburoog sokolaa ji. wala MD ngi dee. Vox Populi ñëw ak ñun monsieur le maire ci. ayca. bilan police la ci ñi mu teg loxo. junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ñaar. ci ñoo xam ne dañ doon màngaani ak ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ñoo leen doon yóbbu ay convoyeur lañ. teg nañ leen loxo ci weeru octobre. Espagne lañ doon dem Espagne. ñu ngi leen jàppee diggante Soumbédioune Bargny. Rufisque Mbour ak Saint-Louis. ah Tëngéej am na ci wàll. Tëngéej am na ci waay. waaw heureusement ba ñun bi yoon tudduñ ñu. géej waay bokk ci déedéet déedéet déedéet. géej waay ñoom ñi nga xam ne buzz Sénégal yéen ñoo ko jël. non non non du du ñun de bi yoon day dëgg dëgg bokk ni bokk leen ñun suñ géej gi du géeju caaxaan di géej géej. <laughs> dégg nga gaynde yi ah gagné nañu Guinée Bissau. mooy kon gagné nañ de. Ah, ah c'est bien c'est bien. dégg nga loolu. baax na. baa ngi nii. tay la. banlieue ba nag fi nekk nii la. Ah. monsieur le maire. monsieur le maire. monsieur le maire monsieur le maire. ah ba saxkat yi jeex na. Ah. abri provisoire. waaye yow statut chef de l' bi nag match baa ngi nii soo Karim Wade. mais fu mu ne dañuy xool kan moo kan moo yor euh, moo nekk chef de l' opposition. terminé yéen a kaay monsieur le maire ñëw ak ñun ci gis nga agressé. Mhm. dellu si waat nañ de Ndakaaru Njaageel Jóob lu ëpp ñeenti junni ci ay doomu aadama police teg nañ leen loxo. agresseur waaw. tribune yéen kaay nag ñëw ak ñun ci diggante cadavre politique ak coquille vide. ay meddi yoo xam ne dañuy dox nii bokkatuñ de. ak ñoo bëri ñoo xam ne xuus maa ñàpp. xam nga Macky Sall daf ne woon réduire l' opposition à sa plus simple expression. simple expression. dana nal opposition bi dëbb leen. def leen li moom ba dootuñ de deseeti dara. waaye journal bi nee na ko ak ne tournure ni mbir mi mujjee ëlbatiku Macky Sall ay alliés ci boppam. le réduire à leur plus simple expression. ana allié yi. allié nii toog. ñun ñamaguñ. <laughs> dégg ma de Macky Sall pour nal opposition bi dafa gàddaay law Karim. dem na fa Khalifa Sall. yóbbu Ardo. dégg nga ma de jël Idrissa Seck wan naa def. da koo phagocyté koo dugg ni koo phagocyté. jël ko jox ko conseil te gémmiñ gi. dégg ma de. Mm-hmm. léegi nag. PDS si nga xam ne ñooñu nit ñi dañ leen a eh, dañ leen a wàcc woon bàyyi leen soxlaatuñu leen 2012. mu ne coppe jël Omar Sarr. Omar Sarr lan la ko mën a indil. AFP bu Moustapha Niass xuusmaa ñàpp dara desatu fa. parti socialiste ba ba ba Khalifa Sall demee léegi. su ko jéem dara desatu fa PS dara desatu fa. Mhm. ay ko nga fii de. <laughs> dara maanaam mag xanaa xamoon Macky Sall xanaa xamoon ne ay alliés ci boppam sax la néewal doole fi mu nekk ay àndandoo waaw moo tax yéen kaay des médias gi ne ko yow ma kii quantité la gënal qualité. ay ku fàtte démb. déggoo ma de mais xoolal xoolal lii xoolal lii. kon daal quantité la def bàyyi quantité bi. oh oh yow. Hmm? yow baax na. nañ dem le témoin yéen nañu gis nga ko. ba mu tojee opposition bi ba mu ne rëjëx Macky Sall daal moom tund moo ne ci biir gaal gi fi mu nekk nii. Hmm. ci wàllum opposition. loolu yéeme na de. yéeme na de. <laughs> man lii lii laa xamul lii lan la. Mhm. dégg nga loolu. Sud ñëw ak ñun si ubbital école bi tey la monsieur le maire. waaw tey la ñeenti millions ci ay élèves yoo xam danañ dem nag maanaam jàngi. Mhm. dégg nga source a nañu waaw kay. ñe deux mhm. seen gaal nga xoolal ca Maroc la ñuy suuxi conseil économique amatul benn carburant ndekete. conseil économique. ama carburant amatu ba. ah mais Ndaamal Kajoor dina kàngaar. amatu ah, le soleil yéen kaay ñëw ak ci. nee nañ nguur gi recruté de. deux cent deux mille neuf cent soixante quinze. loolu dee la wax. ubbi tey jàng tey daal bëgg nañ mu leen foofu rek. réew mi ko tijjee nañu xool ko. Barça ak Balzac ji. dégg waaye ma lu tolloog ñaari téeméer ci ay doomu aadama bokk na ci ay jigéen ñu ëmb. ak ay bebe Ah, ci benn fan ñii la ñu jàpp xoolal li jigéen ju ci biir gaal ah, ay yow ma ne dëkk bii waaw ah, kay le quotidien yéene kaay monsieur le maire mhm. xoolal Macky Sall société africaine de raffinage ça waaw dàq na boobu ma fa nekkoon ku mu teg xanaa euh, euh, euh, madame Marème Ndoye eh, déclaré borom tagal la andi ah ma boroom tagal la andi. waaw borom tagal la indi de borom musóor. jëlee na fa borom. mbaa mbaa watu gi ñëw na teg. xaadim ba. Mhm. bolo kafe. profitoo ca moom tamit. indi directeur général adjoint. Momad Sarr la indiwaat. très bien mi ngi nii xaadim ba. looloo xew ca Sarr. waaw kay waay. l'observateur ñëw ak ñun ci conseil des ministres. Mhm. xam nga conseil des ministres monsieur le maire. c'était comme la rajo. xam nga la rajo c'est c'est un mythe bokkul ak télé. nga xam ne nit ñi dañ lay xam di la gis mythe la mythe. mythe mais mythe bi amoon conseil des ministres. woon moo bari. kumpa kumpa mbóot kumpa gi amatul. ah fii ku ne kaay nekk ministre. mooy yow compte que sama ministre. man man la jékki-jékki rek oo kenn def ko. yow ma ni. kër gi bëri du baax. Ah, ok lii quotidien ñëw ak ñun ci. coalition jot na la mhm. moo ko tas. Imam Mbaye Niang sax dem na. Mhm. Aliou Sall ngi nii le. maire Guédiawaye te ba muy jàppale école ya àdduna nag ci wàllu njàngam yi mbirum xam-xam scientifique gi nee na jogante gi fala gaa yi wala gën a góorgóorlu libération yéen kaay ñëw ñun si restaurant baa ngi nii mhm. le relais sportif benn waaye daal moo téléphoné gérante bi mhm. ne dinaa ñëw teg fa bomb fan ci panique am relais men relais gi waaw ne te du Macron day yabaate yabaatelu relais fa la martu yi woon martu ya ah déedéet fële la yu yu taala ya ah, régal ah waaw waaw déedéet waaw waaw kon damaa woo naa moom régal fi ñu ko fit wa dem <laughs> yée déggal réew mi réew mi APR hmm. eh? bi nee na ndey ndey dee lañ jaay mbaa di moom lañ ko joxee waruka eh, ah waaw Thiès xool sëy bi nii Mimi Touré moom Kaolack Grand Yoff moom lañ jaay Thiès gis nga ko nii Thiès yëpp Idrissa Seck lañ ko jox léegi waa affaire yi sacrifié nañ conseil ba dox na. ah non mais attends am nañ ministre am président conseil euh, économique. Eh, ñu ni eh, eh, réew mi wax na dara de. non c'est que ñii li ñu wax. nit ñi réew mi ñam na de. waaw xoolal les éco rek. les mm-hmm. tamit moom tey ñëwul nag moom it nag. ah oh maître Moussa Diop. ah nee na loolu de Benno Bokk Yaakaar ak Macky démb. war na naa ñoom Aji Mbergane Kanouté. ah. <coughs> ñoom Aji Mbergane Kanouté ñoo bokkoon Macky 2012. ah Mamadou Mamadou Moustapha Diagne. waaw Mohamed xaw ma. bu éducation. ah ñoo yow ah mi ngi nii de en tout cas daal diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak Mamadou woon. Hmm. tàngoon na de. mi ngi nii de rencontre bi. mu ngi nii Aminata Mbengue Ndiaye. parti socialiste mi ngi nii déedéet bëggul woon Mamadou woon teew Mamadou Wane nag wax na lan moo tax mu ne fa. Mamadou Wane Aïda Sow a moo leen mujj àttee. Mamadou Wane du may dara de. waaw yàlla. la Sénégal waaw waaw. la Sénégal ñëw ak ñun ci Médina Gounass. Mm. ca Tambacounda. Mm-hmm. gendarme yi daal waa dëkk ba nee nañ gendarme yi ñoo fa def lu ñaaw. Mm. jël ay taalibe sëriñ bi jógee woon tool jàpp leen dajale leen ne ku nekk da mbaj sa morom. lan. billaahi. ku def loolu. loolu dafa ñaaw. ku nekk la na mbéj sa bopp. waaw benn doomu sëriñ bu mag a mag a mag. jarba jarbaatam moo ko doon mbéj. doomu sëriñ ñu koy mbéj tamit. jarbaatam ci boppam. moo doon mbéj sëriñ waaw comme man rek ñu ne sama jarbaat na ñëw di ma mbéj. moom mu taxaw ñu koy mbéj. waaw ah, waa ñàkk pexe pexe la mu joxe ay lexam. Ah, waaw mais attends moo doon doomu xalif bi mer na de. Ah, nee na loolu lii kenn mësu koo gis. non jar na ko nag. jar na ko nag jar na ko de. waa Médina Gounass nag mere nañu gendarmerie bu gulumbu mere nañ leen torop sax. Mm. critique yéen a kaay monsieur le maire ñëw a ngin ci géej gi. bato usine yaa ngi tukkil jamono. buub nañu lépp yóbbu. géejee kaaya. Covid baa ngi nii. ñëw na ci jamono yi. corona ji moom la enquête yéen a kaay ñëw. direct news ñëw ak ñun ci. leaderu parti yi di dugg ci gouvernement bi est-ce que yi nañ leen topp. est-ce que ay leader ce que seeni militant danañ leen topp. est-ce que dañu àndaale dara. mais journal bi nee na mais yow seen dugg bi ñu dugg. ay tuuti ñu leen jege noonu ñoom ñooy am ci teraanga ay lettres yu ndaw lañu. waaye yow ma ni tuuti tuuti tuuti te gis na militants yi léegi xamal lañ jóg te toppatuñu léegi seen leaders yi nii. gumba taxlu de. Mm, mm, mm. gëmm nii rek topp non ku weddi laajal Malick Gakou. c'est révolu. journal bi nee na ca Jidda caaro yi kaw ay ñoñam dañu ko yuuxoo caxat caxatee. waaye ana Gakou yow. ne ko demuñu. ko dem. ah déet gisaguma dem gisaguma demam de. MD man li ma doon daa bëri damaa la lu. dégg yéen a kaay gi de. ana gàkku daa dem. et puis xamala la militant yi xamalu militant yi mënul accepté luñ mënul jàpp. Euh. lan moo tax ñoom ñuy dem di fekki Macky. teew Macky Sall daraam doxul. dundinu askan wi. kaleka koom-koom gi. dëkk bee ngi mittee mittee ba maara day taali mais ñoom. fuñ jëm. moo tax ci tribune yéen a kaay responsable. responsable grand parti bi nekk Jidda Caaroy kaw. Mhm. ana lu mu wax. lu mu wax monsieur le maire. lu mu wax. nee na El Hadj Malick Gakou bu ko neexee mu dem. ndax la. na dem. na dem ba mu neex ko. waaw ba kenn laal ko. waaye Malick Gakou mënu leen a def ñoom ay traître de ay ay warkat. ah ok. demuñu. na dem demu boppam opposition bi la ñuy toog. waaw yow baalewul kenn. dëkk boo xam ne ñëpp bëgg Macky Sall sax boppam sax li mu bëgg moo mënul ne. <laughs> Macky li mu bëgg tam mënul nekk. tamit mais ñëpp dem. mais bu ñëpp demee ci pouvoir bi mais mais. day yéeme nag. waaw ah, mais non Macky sax kon war na tiit. day yéeme nag. yow loo xam ne yàlla sax amu ko nga ko am. monsieur le maire dafa woote kii gouvernement élargi. gouvernement élargi mooy lan xanaa Macky moom amul ay nit yu élargi moom. ana ay cadre am. compétence lay wuti ci biti. waaye compétence universitaire yaa ngi fi boroom xam-xam yaa ngi fi borom xam-xam yi fan la koy jëlee. ci ñoo xam ne dañoo yoroon réew mi. Mhm. waa réew mi ne leen da ngeen a tële dàq leen ñu mel ni ñoom Omar Sarr ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooy compétent yi te sénégalais ne leen vous êtes incompétent ba dàq leen. mu jël andiwaat leen fëgg ñëw recycler leen indiwaat leen. fëgg jaay fëgg jaay waaw loolu mooy compétence. xëy na écolo la rek écologiste la rek écologiste yi faw muy. wax ma ban njaab laa njaab tey. <laughs> waa waa seen TV l'officiel ban njaab la tey jii tey jàppan <laughs> non mais damaa jum ni. non mais Moussa la bàyyi non damaa damaa jum ni. leader yi lañ waroon wutal leader yi lañ war a. bu leen doon dara jàppale leen rek ñoom liñ encaissé déjà rek dafa doy famille tër geex ñun ñamagu ñeex. Oh. ñoom ñëpp ñu taxaw liñ encaissé rek dafa doy dimbali leen rek. famille tër gi. te xam naa ne yeneen dana génnaat yeneen signature war na wa daal xam naa moom bu jékki-jékkoon nag mais monsieur le